iba jiyate saf kone kila message mo munati mol um, bimba tele jive kam mol natale natale ka fon soto dal so let's have fun to the max next fala dj big sam la muso bijanne woto daba nuyul ni setan jiyates ah uh, may nuyu ñi setan jiyates yep dina nuyu yow lamin jam no problem mo jëkër big sam waaw lana sa message ñi nga xamne ñi ngi setan tele askan yi jigéen yi pour ñu because Gambia GRTS lay am. waaw soo kuy suñu sa bunti kër waruloo waaliyaane soo ñuy seetaan GRTS as far as. waaw suñ dëkk la suñ la. so we are all Gambians. so nañ bëgg di GRTS GRTS sa kaw sa kanam loolu neex na Gambia sa kaw sa kanam ah, nuyul saf ko nag GRTS naa rek Ramita maa ngi nuyu everybody ñu ngi nii ñoo génn si pour ñoo am si fon pour ñoo jàppale si Pape Diouf because Sénégal a Gambia yëpp benn la maa ngi nuyu suma friends ñu pati nice ñu jeexal ko ñu tëddi waaw very yaa nga di liggéey si aar bi di support nit ñi di support musiciens yi te ñu tase yoo fii nuyu laa ngum ñu seetaan saf ko nag jiyaat waaw maa ngi nuyu ñëpp lamin ah. ba pare di la ne jërëjëf parce que tey soo gisee lii mu am si Gambia bi gannaaw yàlla yónent bi yow la. waaw soo déggee ma ne la yow la du ma si wax président bi léegi yow loo dee def rek jiital gi yëpp président bi nga dee jiital. léegi président bi mooy sa lépp. waaye ñun laa ñaanal tam because of lu mel nii. soxloon neen ko Gambia. waaye te yow yaa ko fi indi. Mm. Lamin da nga yaaga si liggéey bi. Mm. foog yàlla jàppale la. waaw ñun na xaleel leen. Mm. léegi léegi nag liggéey gi. nga tànga si tànga goo xam ne bu xuloo ya man waaye xam naa ne xol bu set nga am amee lu loo kenn hard feeling yéen nga yéen na la yàlla defal jaama mm. te lii yéen na dem si kanama kanama kanam nit àdduna bi yëpp a ngi ko seetaan ñëpp a ngi ko apprécier yaa ngee dimbalee ñawkat yi mm. yaa ngee dimbalee ñu nekk si service bi te defuloo ko ndik fay ou anything mm. yaa ngi ko def te yàlla rek tax yal na la yàlla jàppale te boole la président bi te yàlla musal na nag si duma yi. amiin noonu yu nuroo soppe yu Lamin. waaw na yàlla yàlla fay sa nit bu baax nga si kaw sa kanam sa loxo sa kaw. waaw waaw kii youths la fii Brikama mu ngi daan dooleem guddi at this time is one one thirty one thirty in the morning la mu ngi jaay solansam kii nag lu tax ma jël kii mooy pour youths Gambian yi ma di leen wax liggéey am na fii. liggéey dafa bari façon métier dafa bari façon pour nga daan sa doole itam dafa bari façon otom baɗugol ala yajala bi wontati yimɓe birikama jan saf konek natade ni yaja ga ñinta wolom aba lemunol waf ka ñin suuto pour que tan yal tolla tele jibe lala ko dow ko siya sifa statal hoslin sifa siyatale e so hoslin kenol eɓe gambe jan dula o dula woto ñimba lemunol waf kan jan aka wa balu wolla bisimilla mawɗo nuyolni sétan saf konek jrts maa ngi nuyu gars yi yëpp di leen sant di leen gërëm xamal leen affaire bi daal affaire bi daan door kese la so ku nekk ak ku ku nekk ak lu nekk sa xol daal so maa ngi nuyu gars yi ñaanal jàmm yàlla na yàlla may réew mi yëpp jàmm asalaam nataal nga président nataal nga imam waaw nataal nga man mi sama boppa naka yëfi nataal bi na parce que lii gis nañ ne liggéey la métier boo xam ne you can make money out it wax ñu looy woy advice ñi nga xam ne ñu ngi seetaan GRTS Youths of the Gambia. li ma leen a advice rek mooy ne ñu jóg liggéey ndax liggéey rek am solo. man mii wax ak yow nii job bi laa mus di def. suma dunda yëpp suma life daal. start naa ko for the past two decades. te gis naa ne xam nga man cee sutura suma bopp bu baax a baax. well aw ma ci alal nag. waaye kontaan naa ci. waaw ndax comfortable naa ci bu baax a baax maa ngi cee faj suma soxla yëpp. am nga si jabar. amna si jabar suma domi ci la len ngénte waaw moy lima la wax ni rek am proud to be a photographer because hmm. suma ma photographer xaw fuma fu ma jëm yow dañ dé tassé ci programme di may gis hmm. di dé gis ni maa ñëwé ci programme oh, waaw lolu man duma la ko hmm. wax waaw thanks to the job kontaan naa ci trop jërëjëf kibi doon I'm not tell my tell my team, tell my team, tell tell lamin ngaje ba management bal to birka ma jang itela advice mo net funding kel mini alon ke ba saf ak jibe kan GRTS ba birka ma jam te yeah, alhamdulillah you know kamol manage among easy mm-hmm. but funding kel be advice la um, saf konak is a very good program mm -hmm. you know it's, it's our own Gambian thing and then nga ma ko nga champions promote mm-hmm. program we ta to you know nga nga, nga support nga, nga, nga uh, sponsor dia and then any other possible pro, pro, um, packages yeah, for, for, the, mm. for the program. Mm. It's, it's, really a very good program. I always listen to it on yes, radio, yes. and then it's obviously very fine. Mm. Wishing you all the best of luck. Thank you very much. ñi holiday Gambia naka holiday bi bro na nga man Jibu Jibu Sala. Jibu Sala from. from Sweden. Sweden. so bro yeah. ah Omar naka sa holiday bi Gambia waaw mu ngi nice moom